هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر أعوذ بالله الآن من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا برغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المشاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran bi ñu leen defal bis bu nekk ci waxtu bi ci koor gi tey nag xam ngeen ni lañu am ñaar fukki lañu am fukki fan ak juróom ñett ci koor gi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp may ñu eggale ko comme niñ ko commencé xam ngeen ni démb ñu ngi woon ak yéen ci suratul qiyaama muy làq sumu bi yowmal qiyaamati tey moom lañu bu fa seeni eggale insha allah bismillahi rahmaani rahim ñu ngi commencé suñuy wax ak suñuy jëf ci turu yàlla bi nga xam ne moo sell te màgg yàlla bi nga xam ne mooy yërëm mbooleem mbindeef ci àdduna waaye mooy yërëm képp ko gëm yowmal qiyaam yàlla eggale ginnaaw bu mu waxee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam si ne ko bu jibril ñëwatee di wàccee si yow alquran bul répété bul wax bul def dara man yàlla dinaa la ko jàngal dinaa la ko xamal dinaa la ko leeralal te dinaa dajale alquran bi yépp ba mu nekk benn tey nag mu daal di bàyyi loolu ñëwaat ci beneen doo ñëwaat ci doomu aadama yi ni ñu bëggee lu gaaw ni ñu bëggee àdduna ak ni ñu bañee li nga xamante ni mooy alaaxira nit ni ko yàlla bindee lu teew rek la xam dafay yàkkamti lu teew rek mais li ñëwagul moom waxu ci dara te ku ne xam na ne doomu aadama dangaa war a liggéeyal sa àdduna li ñëwagul balaa muy ñëw di la bett yàlla mu ne kallaa bal tuhibbuuna al aajila kallaa ak jàjj bal li fi nekk daal yéen nit ñi doomu aadama yi tuhibbuuna al aajila da ngeen a bëgg àdduna aajila mooy àdduna ndax si lañ nekk mooy li nga xamante ni moom mooy li teew yàlla mu ne yéen daal loolu ngeen bëgg wa tadaruuna al aaxira ngeen bañ yowmal xiyaam te yowmal xiyaam mooy mujj te yàgg-yàgg dina ñëw kon waruñu koo bañ dañ ko war a liggéeyal doomu aadama bi noonu la ko yàlla bindee li teew ci xelam rek wala li teew rek moom la moom la kii mais li nga xam ne ñëwagul du ko préparé dem na sax tey ba si ñun ñu bari si ñun li nga war a def suba sax doo ko préparé balaa suba da ngay bàyyi léeg-léeg rek bu mu ne këtti ni joon su ko defee mu bett la te àdduna nag ni ñu ko yàlla di misaale waruñoo allaaxira waruñoo bett dee waruñoo bett dara waruñoo bett parce que xam nañ ne dañ ciy yegg kon war nañ koo liggéeyal balaa muy ñëw ñuy rëccu wala ñu nekk ñoo xam ne dañuy perte àdduna ak alaaxira yàlla mu ne mu ñëw nag ci yowmal xiyaam ñaari façon nit ñuy ñëw ñaari façon nit rek ñoo am yowmal xiyaam ku texe ak ku texewul ñi texe mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy dekki seen kanam ya leer naññ yàlla mu ne wujuhi yawma idin naadira mu ne am na kanam yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam dañuy nëtëx dañuy leer dañuy rafet lool xam ngeen ne ab jullit su génnee àdduna kanamam dafay leer dafay rafet surtout nag bu dekkee nag surtout place yi nga xam ne mooy place jàpp yi booy jàpp place yi ngay raxas yooyu dafay leer naññ ëllëg yowmal xiyaam moo tax yàlla ne wujuhu yi am na kanam yoo xam ne yow ma isin keroog yowmal xiyaam naadiratun dafay leer naññ nëtëx rafet lool waaye li si gën a dàq nag ila rabbiha naadira dafay xool boroomam kanam yooyu dañuy jàkkaarloog seen borom dañ koy xool xam ngeen ne nee nañ yowmal xiyaam bu ñu yàlla dugalee àjjana ba pare li dàq yowmal xiyaam mooy jàkkaarloog borom bi gis biñ koy gis mooy li gën a neex kër këroog yowmal xiyaam saxaaba yi bi aay bi wàccee laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax dañuy gis suñu borom yowmal xiyaam mu ne dangeen koy gis bu mu leer nàññi comme ni ngeen di gisee weer bi ci kaw mu leer nàññi nga xam ne booy teen di ko xool sax leeraay bi léeg-léeg mu jàpp sa bët ba doo ko mën a xool bu baax waaye di nga ko gis mu ne dangeen gisee noonu seen borom. kon yàlla subhaanahu wa taala bu yomal xiyaamee bu ñu dekkee dinañ ko gis te nee nañ gis yàlla moo dàq xéewal yi nekk ci àjjana yépp gis yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko dàq yàlla mu ne wa wujuhu yawma izin baasira mu ne am na kanam yoo xam ne keroog yowmal xiyaam dafay ñëkk ñuul kukk ñàng ndax lan mooy gi nga xamante ne moom lañu nekkee woon fii ci kaw suuf weddi gi ñu weddi woon yàlla ci kaw suuf bu ñu dekkee ñoom bu ñu xool boo xoolee seen kanam yi rek xam ne kanam yi kat kanam yi jëm safara la waaye du kanam yi jëm àjjana yàlla nañ ci yàlla musal yéen yàlla subhaanahu wa taala mu ne tazunnu an yufaala biha faaqira mu ne ñoom day kanam yooyu leer na leen doo wax sax jot nañ waaye leer na leen ni ñoom kenn du leen defal lu baax wala lu neex ndax lebaluñ ko woon borom bi fii ci àdduna kanam yi dafay ñëkk lool ñuul kukk ñàng ñoom ñu mu leer leen ne tey jii moom ah du baax ndaxte ñoom lebalawuñ woon lu baax bu leen yàlla yërëmul yàlla na yàlla yërëm ñëpp. yàlla mu ne muy misaal nag ki nga xam ne day waaj a génn àdduna ni muy mel mu ne kallaa ida balagati taraaqi mu ne kallaa ak jaaj isa balaxati taraaq yi bakkan bi su demee ba nga xamante ne egg na ci xar-xarle di waaj a dee waqiila maraq nee na ñu daan ne anakat mooy mocc nit ki bu nekkee ci sukuraat di waaj a dee bakkan bi dafay waaj a génn di dee di pour mu wii ji boroomam su boobaa ruux gi yàlla daf koy ñoddi ba mu egg si put gi foofu mu eggsee foofu nag su ko defee nag moom nit ki nga xamante ni moom moo tëdd moom xam na ne day dee su ko defee ñi si des duñ ko xam ñu naan dem leen wooyu mocckat bi waqii la marraaq anakat mooy mocc te xam ngeen ni feebaru dee amul amul garab wala ku nekk ci lalum dee di sukuraat amul garab waqii la marraaq yàlla mu ne anakat mooy mocc wa dhanna annahu lfiraaq ki nga xamante ni moo tëdd di waaj a dee moom daf koy bir daf koy leer dafay xam ni moom mii mi ngi tàqalikook àdduna jëm àllaaxira muy place bu doy waar place bu mat a bàyyi xel place boo xam ne du jaas ñun ñëpp dinañ ci jaar wa vanna annahu lfiraax moom mi tëdd di waaja dee xam na ni day génn àdduna dem àllaaxira mënu ci dara ay mbokkam mënuñu ci dara docteur beeg mocckat beeg képp ku ñëw taxaw dangay xool rek wala ngay def dangay def li nga war a def mais doo ci mën dara wala tafati saaqu bi saaq yàlla mu ne tànk bi peer bi daal di dem daal di tàpp ci kaw beneen peer bi ñu tase soo yëkkatee tànk dafay sànneeku ndax xam ngeen ne ay tànk doomu aadama mooy njëkk a dee ci yaramam su ko defee boo yëkkatee tànk bi mu daal di dal ci benn ci kaw moroom mi yeel bi dal ci kaw beneen yeel bi mënatu la yëngatu ndax boobu yàlla ji yeneen kii bi malaaka bi mi ngi rocci ruux gi te xam nga ne bu ñuy rocci ruux gi ci baaraamu tànk bi la ñuy commencé ñëw ba ci put gi nag deewagul mais xam na ne day dee tànk yi moom dee na ba pare amatul njariñ yàlla mu ne ilaa rabbika yawma izinil masaaq keroog day amul fenn wala lenn luñ la mënal lu dul yóbbu la ci sa borom ilaa rabbikal masaaq duñ la yóbbu si ma sàmba duñ la yóbbu si ma demb amul kenn tamit ku la fa mënal dara bisub keroog nit koo munti yaakaar lu mu rëy rëy lu mu foor foor boo tollee ci digg boobu heure boobu saa boobu mënalu la dara ilaa rabbika yawma izinil masaaq keroog moom jagat rek fu ñu la jagat jëme ci sa borom bu fekkante ne woon nag fala saddaqa wala salla yow dëggaloo woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëmoo ko woon daawoo jàng alquran daawoo jëfe li nga xamante ni moom mooy li yàlla santaane ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah daawoo julli fala saddaqa gëmoo ba pare wala salla du julli walakin kaddaba wa tawalla waaye mu nekk koo xam ne dafa weddi yàlla subhaanahu wa taala ba pare dëddu li nga xamante ni nag moom mooy alquran dëddu li nga xam ne mooy njub dëddu li nga xamante ni mooy téere yàlla bi bu keroogee dina metti de ñu ne mi ngi wàcc ci abu jahlin ibnu hisham la aaya bi wàcc ci moom yàlla mu ne summa zahaba ila ahlihi yatamatta topp mu dem ci njabootam di dox nag di tiitaru di direeku di bonde wala ni ko xale yi di waxee di dox di bonde saxaaba yi nee nañ bi aaya bi wàccee ñu xool abu jahlin ni muy doxee rek daf leen a bir ni lii ci yaa si abu jahlin la ko yàlla wàcce walakin kadaba suma dahaba ila ahlihi yatamatta dem ci aw nitam nag di dox di bonde di tiitaru yaakaar ni moom du dee yaakaar ni yowmal xiyaam du ñëw yaakaar ni nekk na koo xamante ni moom day mucc ci mbugal mi nekk koo xam ne day tiitaru ci na muy doxee waaye yàlla mu ne awlaa laka fa awlaa gis nga lii ñu wax ni mbugal mii ñeel na la yow topp mu ñeel la mu répété waat ko humma awlaa laka fa awlaa topp mbugal mii ñeel na la danga ko doon bañ waaye tey di nga ko gis te yàlla dina la ko def far force lay doon ñu ne bi yàlla bi yàlla wàccee aaya bi yent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu gisee ki nga xamante ni mooy abu jahlin dafa poñe yére bi jàpp ko ba mu dëgër daal ni ko awlaa laka fa awlaa summa awlaa laka fa awlaa mbugal ñeel na la de topp tamit mbugal ñeel na la yow abu jahlin mi yàlla daal di continuer di wax ak yéeféri màkk yi ne leen ay yaxsabul insaanu wala muy wax ak doomu aadama yépp ay yuttu raka suda ndax doomu aadama dafa yaakaar ne dañ koy bind rek bàyyi ko noonu muy def lu ko neex kenn du ko régler kenn du ko xisaab kenn du xool ndax li muy def lu baax la wala lu bon mu ne ndax doomu aadama dafa yaakaar ni dañ koo bind rek mu nekk koo xamante ni day def lu ko neex bàyyi topp wala duñ ko topp benn mbir duñ ko topp benn jëf déedéet yàlla mu ne alam yakku nutfatam min maniyin tum yumna mu ne xanaa doomu aadama ay ngandu ngandalam ay rëy room ak yëpp rëy rëy loom xanaa nekku woon benn toq mànni yu boo xam ne dañ koo génne woon benn toq mànni yi kese moo génnoon ci ndiggu góor dugg ci rox ma ku jigéen yàlla kon xam nga ne dafay bu daf ñu bëgg a xamal ne doomu aadama lu ñàkk solo la mu ne summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawaa mu ne topp mu nekk benn lonk man yi ba bu duggee day mel ni benn walax njaan daal di lonk ci biiru ku jigéen ki ci roxmu bi yàlla mu ne ma bind ko nag man doomu aadama def ko muy nekk doomu aadama ba pare fa sawaa ma yemale ko def ko mu nekk nit am bopp am loxo am tànk am lépp yàlla mu ne wa xalaqa fa jaala minhu zawjayni dakara wal unsa gis nga benn toqmaani yi boobu yàlla mu ne man maa ci sàkk góor ak jigéen léeg-léeg doom ji juddu nekk góor léeg-léeg mu juddu nekk jigéen léeg-léeg mu nekk zawjayni tamit ñaari seex bu góor ak bu jigéen léeg-léeg tamit mu nekk ñaari jigéen wala ñaari góor yàlla moom moo ko bindee noonu moo tax mu ne fa jaala minhu mu jël toq mànn yu bu ndaw boobu loolu ku ko mën ko dul yàlla benn toq mànn yu bu ndaw nga dugal ko ci rax rox mu jigéen daal di koy former ba mu nekk nit ku taxaw di wax ak a jëf yàlla rek moom moo mën loolu mu ne alaysa dalika bi qaadirin ala an yuhyiya al mawta ndax yàlla mi mën lii nag mënul dekkal ku dee yow yow nekkoon nga nit yàlla bind na la ci benn toqmaan yi bu ndaw bind la nga nekk nit koo xam ni ku jug taxaw nga mun a def say def mun a mun a xam mu nekk daal jëmm joo xam ne ju taxaw nga kooku def na nit ki commencement bi moo gënoon a métti la yàlla bëgg a wax te def naa ko waxantuma laa nag dekkal ku dee moo tax mu ne alaysa dalika ndax yàlla mi def lii lépp bi qaadirin ndax moom amul kàttan ala an yuhyal mawta bu mu dekkal ñi nga xamante ni ñoom ñoo dee woon kon koy yaakaar naa ni dajalewaat yax yi moo gën a yomb fuuf commencé ko woon ci benn toq mànn yu kon ku gëm ni yow ci benn toq mànn yu nga nga sosoo ba mel ni nga mel ba toll ni nga toll su la yàlla nee rek ëllëg bi mu la rayee dinaa la dajalewaat say yax ba nga mel ni nga meloon nga war koo gëm yàlla mu ne alaysa dalika bi qaadirin ala an yuhyal mawta mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci suñu tafsirul alquranul tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp tey nag ki ñu may wala ñi ñu may tafsir bi mooy waa Sanoxo famille groupe Sanoxo famille nga xam ni samay yaay fa nekk yaa umu Sanoxo ak njaboot gi yëpp ñoom la ñu may tafsirul quran bi tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين asalaamaaleykum yéen mbokk yi yéen mi saxoo di ànd ak ñun ci suñ jotaay ak seeni produit yu bu Sissoko Habbatu Sauda ci suñ jotaay yi tey bi nag ma di leen présenté produit bu ama ama am solo naam sax ñun waa Sissoko Habbatu Sauda suñuy produit yépp am solo waaye bii daf ci rawati muy Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab ak Sissoko Habbatu Sauda Women's Secret ak Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab bi dañ ko mélanger ak ay plantes naturelles Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab bi am na fenugreek am na Habbatu Sauda am na rosemary am na sage ak yeneen plantes naturelles yuñ def ci biir pour ñun jigéen ñi ñu mun koo utiliser moo tax ba yow jigéen bi may seetaan fexeel ngay jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab baax na ci jigéen ji nga xam ne dafa am soccet wala ngay am problème yu biir yuy métti même bu dee sa kanam dafay génnee xet bu bon wala sa gémmiñ bi génnee xet bu bon ba ci yow jigéen ji nga xam ne dangay sëy te bëgg di neexal sa sëy del jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab Sissoko Habbatu Sauda Women's Mix Hab bi dina neexal sa sëy même bu dee doo gaaw a yëg sa bopp ci wàllum sëy del jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Mix Hab moo tax mbokk yi wax naa leen ne daal lu yàgg lu ne dëgg la ndax xam ngeen ne ci jamonoy maam li ëpp seeni faj ay plante naturelle la moo tax ba waa Sissoko Habbatu Sauda indil leen ay mélange plante naturelle yoo xam ne pour ñun jigéen ñi la ak Sissoko Habbatu Sauda Mix Hab bii daal lépp luy defar jigéen defar sa yaram ba mu baax nga am bien-être Sissoko Habbatu Sauda Mix Hab bi plante naturelle bii rek nga war a jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Women's Secret bi nag pour jigéen ñi nga xamante ne dañuy sëy te bëgg a neexal seen sëy da leen di jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Women's Secret boo bàyyee ba suuf sedd naanal sa benn kuddu Sissoko Habbatu Sauda Women's Secret di nga yëg sa bopp sa néegu sëy dina neex Sissoko Habbatu Sauda Women's Secret bi daal caabi kër gi laa ko tuddee ndax nag dina neexal sa sëy di nga yëg sa bopp bu baax ci wàllum sëy dama ne ñaari produit yii nga xam ne Sissoko Habbatu Sauda moo ñu ko indil dañ ko liggéey pour ñun jigéen ñi la pour luy neexal suñ sëy defar suñ yaram ba mu baax tàggale ñu ak bépp feebar yu sew sewaan yu ñuy am si suñ yaram kon ak Sissoko Habbatu Sauda mbokk yi xanaa léegi di ngeen war a d'accord ak man ndax wax naa leen ne ñun waa Sissoko Habbatu Sauda li ñuy def dañ ko mën te làmbaatu wuñ benn yoon moo tax dama ne yow mbokk mi may seetaan bu la kenn naxati nag boo demee bay jënd xabatu sawda taamul Sissoko xabatu sawda ah ñun waa Sissoko xabatu sawda dañu am ay diplôme yu leer ci wàllum faj te wax naa leen ne képp kuy faj ci wàllum plante naturelle dafa am ay limites ak ay dosages yu ñu war a respecté te ñun waa Sissoko xabatu sawda dañ ko maîtriser moo tax ba ñu ñemee di leen indil ay produits yoo xamante ne da ngeen koy mën a utiliser fu ngeen toll ba noppi ngeen di ci am njëriñ seet si leen ñu si suñu chaise ba nekk ca Nord Foire ca rond-point 26 en face restaurant Yum Yum wala ngeen dem ca Médina rue 1 angle 12 te am nañ ay représentants yu nekk ca France Espagne ak Allemagne ak fépp ci Europe ba ci États-Unis ñun waa Sissoko Habbatu Sauda suñuy produit à base de Habbatu Sauda la ak ay plantes naturelles amul benn produit chimique amul benn effet secondaire 100 pour cent naturel la 100 pour cent bio
واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين